jumaay sëriñ bi kenn bañ ko waxee bañ ne bañ ne jumaay Tuubaa tëj nañ ko ah, julli may na ah Tuubaa de jumaay Tuubaa waaye maa ngi déglu sëriñ bi bu ne Allaahu akbar rek ma ne Allaahu akbar de <laughs> ah, bu ne Allaahu akbar rek ma ne Allaahu akbar de kenn bañ ñëwee naan naan ma day tëj may leen ah ña ñëwoon di ma ko wax dama leen ne bu ngeen demee buñ tëjee jumaay ji jaar ci jumaay sëriñ bi sama tëj moom jëru ngeen di ak si man bu ngeen noppee rek ma di ko tëj waaye li fekk dafa loolu nag kenn mënut a tee man may jullee ka def ni ko sëñ bëgg ni ko sëñ Tuubaa waxee ndax da ban la waxoon da ban jamaatun tuqiim aswaata xam sa da ban la waxoon da ban nag moom amul benn heure bu ci bokkul heure ci bokk kere ba ba ba ko sëñ mu taxaa waxee ba ba ma dikkee mu ne ñu wax ma ne ko ah, sëñ bi sëñ bi de da ban la wax da ban nag moom amul amul doggantal mu ne ma wax nga dëgg da ban la wax de amul doggantal bu doggantal amee rek nekkatu da kon nag lii sëriñ bi nañ ko bàyyi xel am pexe la mhm. moo xam ne buñ ko bàyyiwut xel nag mhm. murid yi dañuy def ne lii dëgg la bañ man cee jaare ba màggal Tuubaa yi ñëw di ko gàllankoor mhm. loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax dara xewut gënoon na fee métti te teewut màggal nañ yàlla defal ci suñ suñ sutura sutura soosee nag nañ fexe ba mu yi bu ci dara dellu gannaaw nañ takkaat suñu ndigg bu baax xam ne moom même sëñ bi bu fekkoon ne yëf yi dëgg la tey demee noonu itam maanaam ndigalu suñ tuwaay suñ bakkan yi dañu ko wër a jaral nag ah, waaw ndigalu suñ tuwaay moom loolu dëgg la nga xam ne ñu ngi ciy teg bët suñ tuwaay digle lii lii suñ tuwaay digle nag suñ bi suñ bakkan yi dañu ko wër a jaral waruñ ci am luñ ci ragal waruñ ci am ci luñ ciy tiit loolu bokk nun ñëpp a ci bokk ci xalifa ba lay tàmbalee ca kaw ca sëñ Muntaxa ma ca kaw ba ci suuf nun ñëpp a ci bokk fexe ba daal sëñ Tuubaa daal ndam lii ko yàlla defal ci àdduna ndam loolu daal nay sar ba àllaaxira rek li tax mu am nag mooy nu takk suñu digg nag bañ a déglu kenn bañ a geestu kenn xam ne nun daal danoo jaayante sëñ bi jaayante lañ def nit nag mënoo jaay dara ba noppi nga amate suñ bakkan yi dañ koo jaay mënoo jaay dara ba noppi sëñ bi jël njëg gi lekk ba noppi di moomate loola kon saa boo ko bëggee moomaa rek xamal ne war ñëw na suñ bakkan yi daal luñ ci bëgg danoo bëgg